match. Parce que tamit, je reste une personne à part entière, j'ai ma vie. Donc, euh, heureusement qu'ils en sont, ils, ont, ils se sont réveillés voilà, à temps. Et puis, euh, euh, Yéou, et puis, Djele Philippe Mais pour dire, donc, Moussa Fall, Nimelim Leg, donc, ils se permettent de menacer des gens encore. am naa ak nii bon fur et à mesure ñu ngi sentir ne vraiment ça passe pas de façon nag kii bu nekk ñu ngi koy jéem pour en tout cas ñoom ñu rëcc ñu ci war a rëcc mais ça je vous le dis tout de suite mm. sama dernière vidéo moom la ça ça concerne les Israéliens pas les Israéliens parce que j'ai dit dans la vidéo j'ai précisé parce que mm. intellectuel là aussi lu ma dara nag mais intellectuel là donc faut faut dire les choses clairement parce que mën na nit mën nañ soppi say wax donc Israélien je parle pas euh, en Euh, juif mooy xam nga juif c'est une religion comme les mm. chrétiens comme les comme les comme les musulmans mais je parle pas de la religion euh, juive voilà je parle pas des israéliens de l'état israélien ça n'a rien à voir voilà il y a un groupe d'israéliens yoo xam ne daal ñoo nekk Sénégal fii hmm? ñoo fi nekk donc di souffler le chaud et le froid ñoo yoroon euh, espionnage wu mag je l'ai dit non voilà la première bi ma ko bi ma koy wax boobu kenn wax ko la semaine bi ci topp la bon Tunkara moom déggante nañ mais mu ngi bëgg yàgg donc euh, on n'est pas on n'est pas en contact donc yëgawuñ ci loolu après xam naa dafay def ko moom day dégg def alerte yu graaw a graaw yi important moo def investigation ci la wax israélien mais man maa ci njëkk ko wax mmh. ne ko loolu laa wax président Diomaye ci vidéo loolu moo nekkoon sama sama sama sama lu gën a important ma ne ko buñ la ñëwee pour liggéey yow tegee la na le bu leen sax tegee la na le bañal ba tëdd ci suuf je l'ai dit après ça a été confirmé par Tounkara et cetera j'étais la première à le euh, maa ko njëkk a wax j'étais la première à le dire di ñëwaat foofu en tout cas li ma ci mën a wax mmh. mooy israélien yi fi nekk investisseur is parce que mosu fi mosuñu fi mosuñu fi ñëw c'était pas leur domaine de prédiction parce que israélien en fait c'est des c'est des milliardaires en fait des milliardaires en dollars ñu ci ëpp ay borom alal lañ alal alal ñoo xam ne alal yu bëri en fait bu ñu investir ils sont plus dans ay États-Unis ay milliardaires américains yu nekk États-Unis ay mm-hmm. unis ay France ay je veux dire ay ay ay même dëkk yoo xam ne euh, c'est c'est ay ay Monaco dëkk yoo xam ne y a que des foofu la ñuy dem mm-hmm. investir mais bu ñu ñëwee ci Afrique dëkku Afrique yi mooy affaire banditisme lañ fiy def et je prends mes responsabilités je le dis je dis ça clairement donc lépp lu ñu fi am. am na lu ci euh, Tunkara jot a junj euh, kii kii tax ñu dindi déjjati Dantec. Mm-hmm. di mo jalise yi xamatuñ fu ñu jëm à cause de benn juste benn israélien boo xam ne li muy entreprise bi muy def euh, du Tunkara man parce que fii fii fuy ne fa aw ma ci woon information yooyu mm-hmm. noonu donc en tout cas entreprise bu mu ubbi amu ci sax en tout cas connaissance amu ci diplôme amu ci dara donc marché gré à gré et cetera et mu ubbi ko donc c'est des voyous ñoo fi nekk. ñi fi nekk daal fii Sénégal israélien yi fi nekk actuellement ubbi entreprise Sénégal ak bu mu mënti doon pour man du pour man sax te loolu mu am te li may wax nii buñ ko weddee nañu dem donc man loolu je prends dama koy wax fii ci antenne bi wax ko président euh, euh, premier ministre Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Faye wax leen ko li may wax nii buñ ko weddee bu ñu ko weddee. Hmm. bu ci demee tuuti yàggatul daal dinañ ci teg seen bët. leer laay wax du ma ci dugg dugg ci fond parce que tamit bon c'est ñoom ñooy def loolu dinañ def enquête bi. mais tant que jëlewul leen fi ñooñu. Hmm. ñii ma cité déjà ñi ma cité nii. Hmm. teg ci euh, Farba Ngom. Farba Ngom Farba Ngom. Euh, euh, j'ai noté parce que j'ai j'ai mis. qu'est-ce qu'il a <laughs> qu'est-ce dinaa dinaa ci ñëw Farba Ngom. Mame Mbaye Niang donc ak ñi ma cité nii muy euh, euh, Moussa Fall Bokar Yàgg euh, Bara Sankaré et comment s'appelle l'autre Abdou Mang tant que jàpp ñu leen jàpp laa wax de je prends mes responsabilités man maa ko wax man Aïcha Ndiaye tant que jàpp ñu leen téye téye ràpp ci kaso bi en tout cas voilà c'est c'est c'est des choses vous me regardez mais c'est tant que téewuñ leen président génne fii euh, juif yi euh, pardon israélien je précise israélien yi entreprise bu ñu am te buñ ko audité buñ buñ ko audité buñ buñ jaaruloon ñu génne leen fi te buñ buñ ci audité dañ fekk ne jàmm doxuñu jàmm buñ leen fi génnewul israélien yi jàpp ne ñii ma tudd nii président Diomaye Faye du ma Sénégal Sénégal laa wax sax de Sénégal ci boppam du mës a nekk ci jàmm te li muy liggéey du ko mës a yeggali foofu nag laa mën a yem foofu laa yem ah te lu leer lu leer fu lu di laa ko wax la laay wax et ci kaw Farba Ngom bon ça c'est le moins important Farba alors Farba Ngom Euh, te parce que c'est xam nga Sénégal li fi jot a xew tamit bon Euh, maa ngi dégg ci suba xaw ma TFM xaw ma ban animateur moo doon wax ne ñu bëri trauma Sénégal ñu ci bëri hein surtout les patriotes ñu ci ëpp traumatisme li fi jaar moo leen jot a jàpp mm. ils sont toujours dans un petit cocon benn benn on va dire une bulle mais li fi jota a jaar du lu ndaw c'est pas rien dañu sant yàlla Sénégal yëpp dañu mm. sant yàlla mais jóge yàlla euh, euh, musal nañu ñu reyante nag mais yàlla ànd na ak ñun parce que bon. ku mel ni man rek da ngay xool situation yi yàlla yàlla génne mel ni man mm-hmm. du sa ngóora du sa dara yàlla ngóora jàmbaar mais yàlla mu ngi ci mm-hmm. vous donc euh, euh, donc euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire donc je, je, le fil donc euh, ñoom ci Farba ci Farba donc euh, Farba Ngom Euh, euh, li may wax dëkk bi li Sénégal li fi jot li fi jot a xew du lu ndaw donc euh, faut faut qu'on le réalise parce qu'il s'est passé des choses on doit situer les responsabilités ku deful bon ku def man pour man am na gisoo polémique ay ba jaxate ay diw ak diw non lu mm-hmm. foofu yii yëpp même ba jaxate bi sax mm-hmm. man kooku parce que man soo ma intéressé wut naa xam sa tur xam sa visage mais après je te suis mm-hmm. mais ils ont profité waa APR bon ils ont gis nga fa ma Fouta Tampi man c'est des gens en fait du jigéen la comme man du ma dara nag mais du enfin jàng jàppee ma leen nawle daal pour man dañuy ils sont pas sérieux donc euh, euh, euh, gis nga ñu jéemee profité waa APR jéem a profité ci affaire pour def ko benn débat benn tollé qui peut prendre ici un mois même plus. bu ñu gis nga président Diomaye fay ak Sonko bu ñu moytuwul on va les prendre dans un tourbillon boo xam ne. d'ici trois ans fii la ñu nekk am jàppal dugal génnal d'ici trois ans les sénégalais ça reste des mhm. on est des personnes c'est des humains c'est des êtres humains. dafa am lu tax ñu fal la aussi mu ngi war a loolu lay wax moom il le sait mais dañuy dolli rek. Mhm. dund baa ngi cher li li li ñu war a wàññi bu du xaaj du jeex dund baa ngi cher essence bi jeex veux dire beaucoup de choses. donc euh, bu ñu moytuwul dinañ leen yóbbu ci lii nii ba benn moment sénégalais ni ah léegi nag lu ngeen fi defar ku nekk di xool sama xool sama parce qu'ils n'ont rien fait. topp ay polémique yii piège bu APR dañ ciy euh, profité surtout cas ba jaxate bi. Mhm. Euh, bon ni ñu ko jàppee na góom bu yu bu waree def nuñ ko war def ñu def ko ko famille Fulbert Sambou ce matin dégg naa porté nañ leen plainte mook parce que je pas en contact avec avec ak Suzanne Camara mais loolu si civil ak civil la kenn mënu ci dara foog ñu àtte leen ne même bu ko Sonko bu leen Sonko baaloon euh, euh, ak président Diomaye Faye c'est pas c'est du civil faut que ça soit jugé entre civil et civil pénal la mais entre civil et civil faut que ça soit jugé du ma juriste nag mais am na j'ai un bac plus deux en mhm. mais j'ai des notions donc euh, c'est du entre c'est du c'est du pénal mais c'est entre civil et civil donc faut que mu egg ba sës mais li wóor ba wóor mooy lii noonu loolu noonu muy moom ba jaxate la Bah Diakhaté et cetera et cetera c'est ay polémique ñoo xam ne du ñooñu la ñu war a téye. ñi ñu war a ñi ñu war a war a delloo xaalis bi. Mm-hmm. muy rapport Prodac Ofnac ñi nga xam ne détourné nañ bu ñu mënee delloo. ñu del te xam na xam dofuñu sax ndax buñ la wooy ne boo delloo ñu kii la nga delloo parce que tam ñun ñëpp ay sénégalais lañ bon mm-hmm. am na loo xam ne buñ ko te te ça ça ça va nous prendre dans un tourbillon de fayante déjà taxuñu jóg et puis voilà un tourbillon de fayante et puis mm-hmm. perte de temps ñu fàtte donc ñi war a delloo xaalis bi ñu ñu delloo ko mais ñi ma la limal ni buñ leen teewul laa wax de. Hmm. je le répète Sénégal du mës a am jàmm te Bassirou Diomaye fay du jé jéggal liggéey. du mën ci problème des Sénégalais. voilà et et et pardon vous n'avez pas répondu à votre question. Hmm. Euh, Farba Ngom. il s'est per ça entre lui et voilà il s'est moo ko def entre dinaa ci jël euh, am sa indi tam sama idée. mais dama bëgg wax. Mhm, c'est problème d'accord d'accord moom parce que moom député la ah député la bon dénkuñu ko dara. Ah, amul benn rapport boo xam ne ah, si nii. Euh, épinglé na ko xamul parce que mosuñu ko dénk dara. Farba Ngom léegi lan lan c'est quoi le problème ak mhm. euh, Farba Farba Ngom bi ngay cité ba léegi. Ah, en tout cas encore une fois c'est pas un problème personnel man ñooñu.

ñu xamul xam xamuñu ne finalement dem na un instant boo xam ne lu nit Macky lu ko nit conseil day dem laaj Farba Ngom quelqu'un comme Farba Ngom pas sérieux bon da koy laaj mais bon lui il faisait ce qu'il voulait faire de toute façon mm-hmm. donc euh, euh, euh, euh, voilà c'est ça donc Farba Ngom il a recruté et loolu c'est c'est c'est ça concerne la gendarmerie et, et la police. dafa recruter lan. dafa il a il a il a saa dinaa ci indi sama sama xalaat mais loolu dama koy wax mu leer c'est une précision il a recruté plus de 2000 à 3000 éléments. ay nervi c'était des nervi enrôlé leen du solo leen tenue Euh, président, euh, pardon, euh, monsieur euh, Jean-Baptistine, pas Auguste, mm. Augustin, oui, Jean-Baptistine. Euh, voilà, donc, moom c'est c'est comment dire, c'est lu mu ci mënte wax tam sénégalais la donc ñàkkul fayda ci dëkk bi la dëkk. Mm-hmm. loolu dañuy wax affaire Adji Sarr bi et cetera et cetera mais affaire Adji Sarr bokk ci loolu ci loolu nag ci la il en pouvait plus il est parti loolu kon xam nga mu ngi may dégg. kon xam nga mm-hmm. du ma ko fenal donc ils ont recruté 2000 à 3000 éléments. déjà rek gendarme c' est des c' est des militaires c' est yu détaché bu ñu paree ñu ne dangay dem ils ont une bango la ñuy jaar ils ont une formation insupporte metti insupportable de kii yow nga jël wuyu boo xam ne un criminel en puissance nga xam ne boo ko ne rey ne sañ na ko nga mu ne la ay ca nga ne ko solo ma tenue mais loolu loolu loolu c' est c' très grave solo leen ay tenue donc tey am naa gouvernement bi ah certainement ñàkkul dina ci def dinañ ci mm-hmm. def seen liggéey mais euh, je veux dire euh, c'est c'est c'est c'est loolu daf dañ ko war a dafa war a gaaw leer et puis ñu gaaw jug ci donc deux mille deux mille à à trois mille éléments ñu ngi sol ay tenues ba léegi euh, waxuñu ci ci ci ci lu leer ci ñoom ñu ngi ci biir kii ñoo permettre ñoo se permettre comme ni ma wax Moussa Fall wàcc na bokk yàgg. ñi ñi ñi ñi nekk ci comment dire ñi ma wax permanence Pastef ñi ñoo fa boole ne dañ leen di topp. Mm-hmm. ils se permettre ça il faut les mettre hors c'est des gens à ne pas laisser en comment dire hors d'état de nuire. Mhm. voilà donc loolu laay wax ne Farba Ngom dama yeggali dama yeggali. est-ce que dina waaw il faut nga ñu def rapidement ci Farba. waaw non da nga